jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV euh, Cheikh Abdou Khader Ndiaye la ñu fekk si mais mbokk yi gis ngeen ne Sonko convent bi dañ koo dogalee ci ci gi ba ñenn ci ay militam euh, jot nañ ci am blessé yu métti métti li xew Sénégal léegi euh, lu doy waar la di dund ci dëkk bi sax yaakaar naa wóoratul mbokk yi danañ waxtaanee ba tey fasu Balla Gaye wa andiwaat na fi ay coow. am na ñu ne Balla Gaye ak Ketchup euh, dogale woon nañ leen ca fi nga xamante ni moom mooy EDK ba nekk ca Pikine danañ ca dugg tamit andi ci ay leeral li xew ci làmb ji euh, mbokk yi Ousmane Sonko ak Adji Sarr projet bi fan lay mujj parce que tamit mbir maa ngi bëgg a yàgg te mi ngi bëgg a loxo mais danañ waxtaanee ñaan yàlla danañ waxtaanee li nga xamante ni mooy wàllum xam-xam dañu bàyyi Serigne Abdou Khadir Ndiaye mu nuyoog askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan wi sëriñ bi ñoo ngi lay ziare. waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf alaaji dégg daaj ñoo lay delloo siyaar bu wér mm-hmm. di nuyu mboole mbokk yi nga xam ne baaxoon nañoo topp ci site bi di Mprod mm-hmm. di tàmbale suñu kàddu ci badaxtu bi bismillahi ruuxi bi tadat mm-hmm. ila kasfi asraarin bi baatini hin tabat waa hiya ilaahil xalbi min baxdi mawtihi bi sukrika yaa mi xaqan taxayumat wa aleykum salaam wa rahmatullah uh, sëñ bi tey waxtaan yi fi ñu koy njëkkee mooy ku ne xam na ne sànc yu bari doxatul léegi sànc yi ñaaraan tabax dañuy tàmbali ba fondement waaye pour ñu ci problème la sànc yi tabax yi ñuy tabax lan taxaw gi muy taxaw lan moo ko waral. jërëjëf sëñ dégg dégg wax naa ko ba tàyyi ay minti tabax kenn du ko taxawal ci noonu. képp koo ko defit gis ko nag. waaye dégg. Mm-hmm. ñaam jom ñëpp. Mm-hmm. te xam ma. Mm-hmm. seen i taxawut. ñan la seeni sànce taxaw xam nga bu fekkee da nga jël sa xaalis dam fekk ko fee benn waay boo xam ne ci jaay géej wala sàmm la gën a jekk nga jël sa xaalis xëpp ko ko loo ci góobee gar ko mm-hmm. man Abdou Khadir sama yoon nekku ci waaye dégg sànc buñ ko jaaree ci yoon wiñ ko war a jaar mm-hmm. ab sànc nu muy ëppeem at ah, dëkkuwaay dong foo dëkk mm-hmm. waru ko ëpp ñun nag ñi ngi ciy liggéey loo xam ne bépp bërëb bu buñ ko joxee ne bépp bërëb bu mu ko def nu mu ko bëgg a tabaxee dégg dana ko tabaxee nam ko bëgg a tabaxee te ci ay mois lay doon ci ay mois loolu secret troisième étage quatrième bu mu ci man di doon boo ñëwee man Abdou Khadir ma defal la loo xam ne billaahi lasi boo ko sóolee dana tabax ci nu mu gën a gaawee bu la neexee lebal ñëw sax bu la neexee dégg booy teg xeer si ciment bi ngay tegee xeer dama leb ko ba noppi song loo xam ne leer na ne milliard a koy defar man Abdou Khadir maa la ko wax. boo ñëwee liñ la jox boo fa suulee dana tabaxu ci lu gaaw buñ ci yemoon mu neex. waaye duñ ci yem. loolu ñu lay jox. waaw après dégg kaaraange lay doon ci biir kër gi lépp luy yeewoo ci kër gi amut kuy bind ku yàlla bind nga man ci jëmm jooju dara say njaboot dañuy aaru daal ci gàttal. mala ya ca biir kër ga ya fay yeewoo dañuy aaru. dégg maa mag loolu. maa mag loolu. melentaan yay yewoo ci biir kër gi ndax duñu aaru sax sàkkaa doomu aadama yi. loo maaseel boo ma jël loolu. dégg mecc mi ñiñ ko bokkal xam nañ ma bu wér a wér. xam kum ma xamut. waaye du diggante Mbàkke tuuba du waa Europe yi de xam nañ ma bu baax a baax dégg ak lan. Euh, ndombag yëngu leen bu ñu nee yëngu leen xel yëpp dem ci euh, bruit mais ma gis ne ndomba gi tamit euh, sëñ bi dafa mel ni ay xaalis laa fi gis de ay cent franc nga ci dugal ak ay dërëm ak ay fukki dërëm lii lu muy def ci ndomba yëngu leen gi. dégg. Mm-hmm. wax naa la ba tàyyi bi jàng jotee dañoo jàngi. Mm-hmm. gëstu peeg lu bari ñëw toog. Mm-hmm. te dégg dama ne la man samay bagages yi maam su ma ci toogoon lu ma bugg te faj ci réew mi man la. waaye samay bagaas ci maam dégg man naa see régler réew mi toog fii fii ma toog lépp. lu ñuy régler fii ma toog dégg mën naa koo régler te si samay bagages yi maam laa koy jaar. Mm-hmm. dama ne ko ñukku ne dem jàngi. dégg. ñun ay sëti buur lañ. Mm-hmm. xam nañ lépp. xam nañ lépp ndax ay seti buur lañ ci bagage yi buur lañ toog jàng toog si kon boole nañ lu leer boole lu lëndëm waaye lu leer la lañ taamu di liggéeyee dégg li gàllaaju yëngu leen lii la billaahi la si ku ko am danga am bayre ba tiit dégg xaalis dana la jóge côté bu ne ba nga tiit waaye dégg bu ma kenn fenal kaaraange nekku ci de lii du kaaraange. déedéet amu ci de na leer. kon lii lan la. dégg ku ko am demal nga wuti kaaraange wala nga kumaan ko kumaan kaaraange kaaraange moom waxoon naa ci li ma ci indi woon doy na sëkk. Mhm. waaye dégg gàllaaj la goo xam ne xaalis bii nga jàpp ne yàq la du yàq. mooy ñaddi xaalis. Mhm. ku bëgg dara def dara. Mhm. waaye gàllaaj la goo xam ne man la dégg. waaw ku ko am. lii lan la ay seetu. seetoo nekk noonu. billaahi lazi lépp loo fépp foo dugg dana leer ni seetu. waa Europe yi xàmmee nañu ko bu baax a baax. Mm-hmm. amul benn bunt booy fëgg te duñ la ko ubbil. Mm-hmm. say mbir yépp ay leer. la ay kayit ak lu mu ci man di doon man la dégg yoon woo jaar mu leer naa ñu ni seetu. Mm-hmm. ay bagages yi jinne laal na ci nag. loolu waral seetu bokk ci. yow da ngay faral di jëflante jinne yi dafa mel ne. ah bu baax a baax. waaye tàggat naa leen nag ndax ci leer laa leen amee jaarewuma leen ci génn lëndam dégg. des fois doo leen sant ñu bañ. ñeme nañ ko dégg lu yàlla bind xam na ma doomu aadama rek a baaxoo yam moroomu doomu aadamaam waaye jinne xam na ma bu baax a baax waaye dégg kii ku ko am maan la am am danga ko am ba tiit billaahi lazi boo ko takkoon tey nekk ci société di fa liggéey danga dégg waa société ba yépp dañ naan diw diw am ko nekk ci biir koñ bi waa koñ bi ci boppam ngay dégg ñëpp ba ci chef de quartier bi diw diw saw tur dana wër dëkk bi moo tax man la ku ko am demal nga wuti kaaraange bayra moom da nga dem ba jàpp na dëkk bi ñëpp yow rek lañ xam xamuñ kenn ku am nekk Europe nekkal ci société waxuma la sax ña nga fay liggéeyandoo waaye patron bi ci jëmmi boppam yow rek lay teg bët xanaa nga teg ko bàyyi sa kër waaye ku koy am dégg wuti jël kaaraange garanti ma ko nekku ci na leer mm-hmm. dégg ak lan Senghor rab da danañ ci dugg ba tey rab yi tamit euh, ñi ngi lëmbe dëkk bi rab yi ñu ngi yàq mais rab yi lan nga jàpp ne moo leen fi mën a jële xanaa man. ci ban façon. dégg rab képp ku muy yàqalati ci réew mi yow la neex. Mhm. dégg rab ku mu yàqalati ci réew mi ak lu mu man di doon yow la neex. Mhm. wàcce naa ci coono doomu aadama yi. singoor gii uh-huh. samay bagaas yi maama du bagaas yi kenn uh-huh. samay bagaas yi maama ba mu waree génn yàgg na waaye waxtoom jotugutoon uh-huh. waxtoom nag day door a jot dégg kii liggéey bu metti lañ ci daj coono yi metti lañ ci daj ndax dafay bagaas yoo xam ne dégg day laaj tuural deret day laaj dem ci àll bi jànj boo xam ne dafay sóor jamono bu ne dañ fay def liggéey yu méttee métt waaye dégg singoor la boo xam ne képp ku ko am bu la rab doon yàqal sa ya jeex na singoor la boo xam ne dégg boo bu ma la boo génnoon dajeeg fii ci bunt bi jinne mu daw wàññi ko ah? billaahi la si yaa jinne du ngeen bokk jotaay mukk man Abdou Khadir maa ko wax kon dégg ñi doon jàmbat rab ak num la man di dikke Senghor baa ngi ni am ko loo ci gisul wooteel ñu delloo la sab xaalis man Abdou Khadir maa ko wax. sëñ Abdou Khadir euh, bu dee nit ku am jafe-jafe doom surtout jigéen ñi ñii daan nañ jur mais jékki-jékki nañ seen jurukaay taxaw am na ñoo xamante ni mosuñu ñoo gis ayoo nen ni loolu waxoon naa ci. Mm-hmm. waaye balaa dara xew dégg bala ma cee dikk. dégg dimbali ma nga xamalaat ma doomu aadama yi nga waxal ma leen man dégg waxaale wu may liggéey. kon doo waxaale yoroo man pharmacien laa dégg. ok yenn maaraay Dakar yi nekk nekkuma ci de dem jël fee sa benn ndomba copier ko téeméeri copier ak juróom dégg di def sañu ndomba di teg ndomba guy jar fukki junne ku la joxu seemel nga jox ko ko yaa yey. Mhm. copier daa yomb di aw juróomi dërëm doo nga copier kayit ñëw solaat ci ndomba jox. nañ bàyyi caaxaan yi dégg man waxaale wu ma liggéey mhm. séquma kenn waxaale pharmacien laa man boo ñëwee lu ma ne la moom la moom la ëm mooy caaxaan dereeti mooy daw ci man mhm. la moom la rek jurut waxaale mhm. waaye dégg am naa fulla ak fayda ak mat gu toll ni lu ma ne la moom la ba nga jox ma ko boo gisul kaa jël sab xaalis billaahi ma gedd sab xaalis suur naa ko dégg bagage yu leer nañ ñi laa yor bu liggéey jotee damay sonn daj coono metti bind tarbiyu waxaali may liggéey waaye dégg wàllu am doom li ma ci waxoon laa ciy continuer wax ba tey képp koo xam ne moo la indi ci man dama la ko ñaan wutal sa baas nga wut sa xarum tudd yar ko ba mu toll na nga bëgg nga wut say sees door a ñëw ci man dégg toogal téeméeri at sama yoon néew ci boo ñëwee da ngay tudd ah. billaahi la si da tudd man Abdou Khadir maa ko wax dégg du man yàlla la. te teg na ko fii ci loxo bi ak koo mën a doon ñëwal maa la ko wax man Abdou Khadi da ngay tudd. xam nga yenn tappale yi maara yi di faral di wax naan saaba du fóot boppam loolu waxi tappale la. Mhm. wala am doom ki ma ko njëkk fajal ñoo bokk ndey ak baay. kon bokk gi deret ak yooyu yëpp du ci dara. Mhm. ku mu dal ñëwal man Abdou Khadir maa la ko wax ku bëgga tudd rek ñëwal seet si ma. wutal sees ñëw tudd. tey gis nañ euh, bala Gaye ginne aw fas ci làmb ji fas lu muy def ci doomu aadama. fas yu weex tàll. dégg dégg bul ma laajati làmb. ah lu xew. dégg bul ma laajati làmb. lu la bëri def. dégg làmb dégg. Mhm. sama xarit nga. bu ma ko laajate. lan lan nga jotee ak mbëri lu xew dafa am ma sa jëflante dégg day def ñaari làmb heure su ma ci waxee su ma demee tuuba dama yam problème ndax dégg. Mhm. bul fàtte ne fii laa toogoon wax la ne la. Mhm. billaahi am nay wàlli yu laax ñu ma nattab la wut seen wàlli dañ maa def may seenub sëriñ dégg sëriñ yi dañoo bëri te bokkuñu mm-hmm. man sëriñub leer laa ci leer laay liggéey samay kilifa ci jëmmi boppam mm-hmm. ñoo ne ma bu ñu sañoon dootoo waxte jëm ci làmb moo tax bu ma ko laajati leer na kon ñu laaj la ci li nga xamante ni mooy xalootu benn fan bi ngay faral di dugg maa ci man ku ne hmm? ku jàpp na bokkoo ci ci yow laa tàmbalee dégg di def xalwatu di live ci dëkk bi loolu mi ngi fi de maa ko gis fii ay waaye dégg billaahi mara buy def xalwatu di live maa ko gis fii oh. ci dëkk bi dafa jéggi na ko loolu fan nga ko mas a dégg ci àdduna de xalwatu di live dégg bu ñu fontoo doomu aadama yi xalwatu mooy lan billaahi maara bu ngeen fi jox seen xaalis man leen di tëjal xalwatu ñeent ñeenti fan ak i sept jours ak lu mu ci man di doon na ngeen ko xoolaat am na si nag ñu amug ragal yàlla man laa tëjul sept jours waaye ban soxla ci àdduna fii moo fi jël tëjal sept jours dégg amu fi lu ñuy tëju sept jours moo amut fii dégg ko bëgg ju bëri nag wala kuy xëccoo am réew ku mel ne Ousmane Sonko wala mag. dégg kooku kooku tëjal xalwatam ñetti fan amoo xam-xam. billaahi la si xaalis jarut tëju set jours. ku ko def amoo xam-xam. seen xaalis yi xam leen ñeen koy jox. xalwatu laaju nekk fii di laay faka whatsapp ak lu ne nga dugg si da ngay jël say téléphone sànni fële tëju nekk ci nit ki. man nag dégg xalwatum ñetti fan ku ma ko mën a fay yeewut ci biir senegal hmm. moo tax man la yeewoowu fi. Uh-huh. la ma ciy laaj ku ma ko mën a fay yeewoowut fii ci biir Sénégal. xay na beneen réew. moo tax mosuma koo duggal it. Uh-huh. xalwa benn fan benn fan sax ñi ma ko mën a fay bariwul ndax yaw nga tëju. Uh-huh. sa ndey ñëw soxla mun laa gis sa baay soxla mun laa gis sa sëriñ bi yow laa yokki sama àdduna ak sama mun laa gis. loolu dégg boo koy def def ko ci lu ko mat. man xalwatu benn fan dama koy def waaye ci lu ko mat laa koy defee waaye dégg. aajo ju waay mën a am jum mën a doon ci àdduna lu mu mën a doon bàyyiwuma dara ba ñëw soxla xalwatu benn fan billaahi la si su ma génnee mu mel na kënu day tàkk force benn fan képp bu dee góor yomb na mm-hmm. lañ lay laaj ci weexal après juróom-ñaar ñaari ginaar rek lañ soxla bu dee góor juróom-ñaari seq lañ soxla dégg mm-hmm. seq yi ñu nag moom ay tëju ci biir néeg bi ñu def suñuy nawaafil def ñuy liggéey noppi rey ginaar yépp ci biir buñ noppee dégg kuñ ko jox ginaare buñ ko soqee togg say mbir jag bu dee jigéen juróom-ñaari ginaar yu jigéen la ñuy soxla hmm. buñ sa génnee lépp loo mën a sàkku ci àdduna da koy am insha allah hmm. waaye xalootum ñetti fan dégg ku ma ko mën a fay yeewut ci biir senegal bu kenn di wax di si jëm euh, Cheikh Abdou Khader yi lan ngay tàggatoo ak looy wax askan wi lay suivre ci MPROD TV jërëjëf sëñ dégg santaat yàlla bu baax a baax julli ci yonente bi hmm. di leen tuubal ci kàddu gi tey nag yëngu nañ waaw waaye dereti góor gi la. Mhm. ak dereti buur gi circulé ci ñun. Mhm. loolu faw muy yëngu léegi léegi. nangeen ma ko jéggal. Mhm. faw muy yëngu mënut a ñàkk. ma am lu ma naqari lool nag ndax keroog bi ma yemee ci mara buy def xalwati di live loolu dégg naqari na ma. nañu dimbale doomu aadama yi te yàlla tax xalwati di live amut. dégg. wa aleykum salaam wa rahmatullah. Aïcho euh, dégg ngeen waxtaan wu am solo wi Serigne Abdou Khadir Ndiaye waxtaan mu nekk waxtaan woo xamante nii tey jii euh, nee na ki doon def xalwatu di live bokk na ci li ko gën a metti ba tax na mu yëngatu. Aïcho numéro yaa ngi noonu affiché ci suuf ecran bi képp ku ko ci woo rek di ko jot mbokk yi ñu doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yàlla na ngeen bari jàmm ci dara darajay Muhammad Rasulullah